benn butel Doudou Sané ngi noonu Doudou Sané Tyson do ngi noonu Ama ngay wàcc Ama wàcc na ma ngay dugg Ama ngay dugg Ama benn par benn Ama nga noona ma ngay yéeg escalier benn par benn Ama lamb say lamb lamb doy waar Mansour Om maa ngi noonu Mansour Om ngi noonu taxaw muy woo wàcc na ci bi wàcc na ci bi Mansour Modou Anta ay waaj a wàcc noonu ñi ngi lalal percal bu noir ak bu blanc black and white noir et blanc lañ ko lalal Baye baa nga noonu di waaj a wàcc ceeskaay la takkee ceeskaay la waree dëgmal Ndakaaru ñëw fii ci arène nationale war a jàkkaarloog doomu Boy Kayre bi jën Kayre la war a xale bi nga xamante ne bii macha doomu mbër la. wante tamit ndaanaan la ay ca Mansour ma nga noona xoolal ma googa Senghor Mansour Mansour Senghor ga na ñaar fukki mètre ak juróom-ñeent ay mañ ay lamb mañ oh Senghor gaa nga noona am li nga xamante ne bii mooy ay pas-pas ñu takk ci ay morceau yu xonq ay ca Mansour jëlal ma. jëlal ma pot jëlal ma pot bu ba ak leket ga Mansour jëlal leket ga ak pot bu pop siwo ba ba morso bu xonq lañ ko muure morso bu xonq lañ ko muure xaw ma la nekk ca biir na cey làmb moo bëri ay bagage moo du antaange noonu kan may bàkku ca biir moo du antaange noonu borom Cees ay ca Mansour Modou Anta ngi noonu layu ba mu taxaw nag dafa am seetu Modou Anta layu ba mu taxaw dafa am seetu waaw mu war a jaar ci drapeau bu rouge bi waaw nañ waa kër Diène Diouf Kaïré ngi noonu dañuy wax waa Thiès ma ngay baax baax na tay singa gi noonu di waaj bàkku sotti nañ ko benn butéel sotti nañ ko soow ma mu yëngal bopp ba ma ngay raxasu ca ndox ma am na seen borom dof du wër ña nga koy tëggal yaa ñuy moom yàgg a jib waaw waaw mor nga ma koy bàkk waaw waaw ca Mansour ministre Matar Ba mi ngi noonu di ñëw ministre des sports ministre bi nga xamante ne bii moom la ñu dénk wàllu tàggat yaram ci biir réew mi kooku mooy ministre Matar Ba. Bassirou Eumeu samp na benn bëtu om ba ca suuf jël na sa ngoor ga dóor dóoraat na waaw waaw sonn nga yuux xale baa ngay joos Mansour loolu mooy joos waaw oh, waaw cey ma tay si nga borom dof du Mansour la de Guiers nga noonu ca géew ba ab bal la yor ma ngay football day jongle wala lan lay def ma nga noonu yor bal ci digg géew ba ma ngay football cay Lac de Guiers cay Lac de Guiers Waalo ay waay lii neex na waay waaw waaw taxaw cay loolu waaw waaw ma tribune bi waaw waaw lamb rek a mën lii say lamb waaw Thiès a ngi noonu di ñëw Sa a ngi noonu di ñëw takku Balla Gaye a ngi noonu ah xale bi Moussa Ndoye la war a dajel Moussa Ndoye la war a bëreel Sa Thiès a ngooga ca Mansour Modou Anta summeeku na oh Baye Fall summeeku na nee na guddi guddi Cees nee na guddi guddi Cees kaay ma nga noonay lagg Modou Anta ay ca Mansour Balla Gaye doo nga noona cay champion ndaanaan baa nga noona ndaanaan baa nga naray dugg si am ma ñëw na wante Sa Thiès ñëw na ñu ngi noonu jàkkaarloog Balla Gaye ma ngay ci géew bi mooy Pakala bu Mbuur ak Forza bu Faas ñoom ñaar xam nga ne Gaston Mbengue moo leen taxawal di combat ba nga xamante ne bii tamit bokk na ci combat yi gën a neex ci làmb gi ñoom ñaar ñu war a def face à war a jàkkaarloo tey jii seen première face à face tey jii lañ ko war a def loolu ci kanam tuuti lay doon Mansour gis nga leen ñoom ñaar ña nga noonu taxaw ca géew ba ña ngay waxtaan nag la ñuy wax kenn xamu ko. wante lépp ci làmb la ca mañ mañ Sa Thiès nga noona Sa Thiès nga noonay dem moo war a jàkkaarloog Moussa Ndoye ko rek yar ax gi lébu ba la war a jàkkaarlool moog Moussa Ndoye tamit ñu war a def face to face tey ci làmb ji Sa Thiès ak Moussa Ndoye Forza ak Pakala bu Mbuur aca ma nuyu naataango ya taxaw na ñoom ñeente nga noonu taxaw Moussa Ndoye Sa Thiès ak nga xamante ne bii mooy Forza ak Pakala ma nga noone di dugg ca biir enceinte ba ànd ak Gaston Mbengue ayca ministre Matar Ba mu ngi noone di nuyu mbër ya nuyu na Balla Gaye nuyu Forza nuyu Moussa Ndoye nuyu Sa Thiès noona ee am na lum am na am na lum toppee jàkkaarloo nag Bombardier parce que Bombardier jàkkaarloo nañu waxtaan ña ngay jokkalante ay kàddu ci nekk wax di jox sa morom hey ay bii bés bis bi tamit bis la ci biir bis Aïcha Moussa Ndoye ay bàkku noonu Moussa Ndoye ay bàkku waaw waaw waaw waaw Aïcha Moussa Ndoye Sa la war a bëreel Aïcha Mansour ña ngay ñaari mbër ya Diène Kairé ak Modou Anta Diène Kairé moo nekk noonu Modou Anta moo nekk ca Modou moo nekk ci kanam Diène Kaïré moo nekk ca gannaaw ay ca

combat spécial baa nga noona tey jii di dimanche le 4 avril 2021 suñu fête nationale de l'indépendance la arbitre souffle na génn seen diggante ñoom ñaar ñi ngi bëree trophée président Alioune Sarr ngi bëree trophée ku am jom yéen ngi bëree trophée ku am fulla di bëre trose ku am kooku mooy président Alioune Sarr nekkoon président CNG ñu dippee ko li nga xamante ne bii mooy drapeau bi tey Aïcha Mansour ña ngay lewaatoo ña ngay jegewante laalante bi yéex na du Anta moo ñu won gannaaw Diène Kaïré lañu ñu dàkk jàkkaar lool say bi combat kii Cees kaay la ware ànd ak mbokkam kee ware Medina ànd ak mbokkam ñu daje fii ci arène nationale ay ca Diène wàcc na Modou Anta wàcc na booy xool ñoom ñaar ñoo tolloo taxawaay seen dagg nag waatoo bi wante ñëwaat na jéem na woon na ma Mbaye Babacar ma ko naam mu ne ma Modou Anta faaw mu xeex waaw waaw faaw mu raak jën kayre ngi noonu moo bëre woon ak Marley moo bëre woon ak Boy Bawol wante Modou Anta lay bëreel Modou Anta lay jàkkaar lool tey Modou Anta ñoom ñaar kenn du ñoom lewaatoo rek la ñuy def wante dara amagul ay ca ñoom ñaar ña ngay nattante maa ngi noonu di sotti ko ay dernière butéelam waaw waaw jël na gën a fas joxoñ ko la de guerre laxas moom sumu xonq la maa ko teg ca non Lac de Guiers ko teg ca kanamam Lac de Guiers ko teg ca kanamam xoolal ma Lac de Guiers ma nga sol benn mbubb bu ñu xaatim la ñuy wax xar sànni Mansour gis nga wet yi am dara la mooy xar sànni da nga yëkkati rek sëppoo ko ma nga yor ñaari sengoor di wër géew ba moom Lac de Guiers làmb sey loolu waa kër Eumeu Sène ubbi nañ keesu picc ma picc yee naaw nañu waaw Mansour arbitre suuf la jeex ñu tuuti lii nag mooy lii mooy buña prolongation la ñuy nii jeex fii ndax de guerre ak Eumeu seen diggante ñoom ñaar Eumeu Sène ak Lac de waaw waaw. dix heures de temps ak moom ci terrain bi dix heures de matin ba dix heures ci guddi waaw waaw Lac de Guiers Eumeu Sène dara Moussa Faye lamb xam naa fa nga nekk sa xol seddul Aliou Sène borom saa jaamaane production fa nga nekk sa xol seddul acca ama nem na ama nem na mais agul attention weccoo nañuy coup weccoo nañuy coup ama door na la dëgër door waaw waaw bu loolu yàggee mu jeex ne waaw waaw la dëgër ama seen arbi suuf la na première cinq minutes yi jeex na. non wala ama ama day faju ji waat ama daa dellu ca docteur ba ama day faju waat Mansour arbitre ba owaat na leen ca diggi géew ba cey bi combat neexut de combat bi neexut arbitre suuf la waat na arbitre suuf la waat na Lac de Guiers Eumeu Sène Lac de Guiers ak Eumeu Sène lewaatoo baa nga noona ca kaw lewaatoo kaw la ñuy lewaatoo Eumeu Sène xaaw gu weex ci loxo ndeyjoor bi jiital tànku ndeyjoor Lac de Guiers jiital tànku càmmoñ Eumeu ak Lac de Guiers jàppante nañ loxo yëkkati ko ca kaw ngay jëm ca wetu saako ya attention di leen fàttali ñoom ñaar ku ci nekk am na trois avertissement ñoom ñaar ku ci nekk am na ñetti avertissement diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène di leen fàttali yéen nga ànd ak Leewtoo TV tey jii di dimanche le 4 avril 2021 fii ci arène nationale ak Gaston production waaw waaw amateur yi kenn kontaanu ci. sécurité bi sax dañoo sonn ñiy sécuriser làmb ji sax dañoo sonn seet seetaankat yi dañoo sonn caméraman yi dañoo sonn reporter yi waxe noppi waaw waaw Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 ñoo nga ca wetu saako ya combat la daggeer ngay manœuvre mais maa nga ne tekk di ko déglu attention la daggeer am na seen laa ilaaha gis lii cey lii Lac de Guiers mi lu ko dal Eumeu Sène ak Lac de Guiers Lac de Guiers yooru na door gauche droite attention oh arbitre la ne arbitre nee na bëre leen arbitre nee na bëre leen dara amul arbitre nee na dara amul Eumeu Sène nag mbër mu am résistance la Lac de Guiers mbër mu mën a yàggal combat la Lac de Guiers Eumeu Sène ngay dóor mais ci loxoy Eumeu Sène lay daal àggul fenn Lac de Guiers Eumeu Sène attention wàcc na Eumeu wàcc na garde ga waaw ay mañ mbaa combat bi ay mañ li may xeeñ neexuma ay mañ suur mañ may xeeñ neexuma de match nul moo may xeeñ match nul maa la ko wax match nul la may xeeñ ci biir combat prolongation bi léegi mu jeex am na seen ak la dëgër la dëgër ngay cokkas mais dalul daan dóor pour bunt la wante dóor day dal dóor yi benn dalu ci combat bi daal attention Lac de Guiers Eumeu na nee na Lac de Guiers nee na dama tel ca médecin ba Eumeu demande na ca médecin ba ñu koy faj Eumeu mbaadu li muy génn ci deret daa bari woon ak Lac de Guiers jàppante nañ loxo jëf yëkkati ko ca kaw nga koy jëm ca wetu saako ya attention di leen fàttali ñoom ñaar ku ci nekk am na trois avertissement ñoom ñaar ku ci nekk am na ñetti avertissement diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène di leen fàttali ñoom nga ànd ak Leewtoo TV tey jii di dimanche le 4 avril 2021 fii ci arène national ak Gaston production waaw waaw amateur yi kenn kontaanu ci sécurité bi sax dañoo sonn ñuy sécuriser làmb ji sax dañoo sonn Guiers numéro 2 Eumeu Sène de Guiers numéro 2 ñoo nga ca wetu saako combat bi doy na waar de Mansour combat de man attention oh. arbitre suuf na arbitre nee na bëre leen arbitre nee na bëre leen dara amul arbitre nee na dara amul Eumeu Sène nag mbër mu am résistance la Lac de Guiers mbër mën a yàggal ko Mansour Mansour li may xeeñ neexu ma de match nul moo may xeeñ match nul maa la ko wax match nul la may xeeñ ci biir combat prolongation bi léegi mu jeex am na seen ak la dëgër la dëgër lay coppas moo dalul dañu naan dóor pour wut bunt la wante dóor day dal dóor yi benn dalu ci seen arbi suuf na nee na la dëgg nee na am na damaatal ca médecin ba am na damaat oh, ca bi jaay oo salaali Muhammad walaali jaa makk jaa bul jaar ci kenn ci ay sikkin sikkin gaynde gi noonu gaynde ngi noonu bëri na ñuy bagage nag ñi ku dajewul ak ñoom ci mbedd guddi yow yéen ñaar kese ay waay Mansour Fall xaw nooy def xoolal ma lii simba ngi noonu moom tamit suñu aada la bokk suñu cosaan la bokk suñu culture la bokk tey mu sey lamb sey lamb waaw waaw drapeau vert jaune rouge la ñu takk ñoom